voilà chers téléspectateurs de la 7TV comme ni ma ko waxee sa njëlbeen ba nee naa leen tey nag eh, ki nga xam ne moom la dalal kenn dootu ko présenté di fii Sénégal kenn ku dut eh, Alassane Ndao donc Alassane Ndao nekk un international footballeur hmm. donc euh, comme ni ngeen ko gisee dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo présenté wu bu ko defee ñu daal di ko dalal gën a yaatal waxtaan bi Alassane nuyu nañ la. waaw maa leen di fay di nuyu sénégal nuyu Sénégalais yëpp di baalu àq te di leen baal ma mm-hmm. yàlla nañ koy fekkee ay déwéni déwén mm-hmm. waaw at yi gën a yokk gudd fan wér gu yaram ak xéwal gu saawan baawan ko mm-hmm. ñaanal képp mbo mboolee mu jullit ci barke Seydina Muhammad amin comme ni ngeen ko déggee euh, nee naa leen tabaski bu jotee euh, wala korité wala genre événement yi lu ñuy njëkk xalaat du leen lu dul baalonte ak ginnaaw bi ñu baalontee yéen ak ba léegi man nag xam naa ni sûrement di ngeen ma baal parce que <laughs> dama leen lakkal lool donc euh, surtout ñi nga xam ne dañ ma daal di proche Ah, donc voilà ñu daal di ñëw si mm-hmm. waxtaan bi euh, du leer du dul waxtaanu tabaski mm-hmm. avant ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy euh, euh, championnat bi mm-hmm. Alassane d'habitude comment tu passes la tabaski tabaski bi naka lay dé naka nga koy dérouler journée bi et cetera waaye kontaan na ak mbégte rek parce que daanaka yi dañ koy namm des fois da ngay toog ay trois ans quatre ans doo tabaski ak famille bi yooyu da lay manqué mhm. donc nag suñu def nañu am chance bu fekkee tabaski bi ñëw nañ gis nañ famille bi suñu am na ñoo xam ne daa daanaka ay dix ans ou bien six ans doo leen gis mais tabaski ba tabaski ngi leen mën a gis quoi mhm. di si am mbégte te ñaanal ñëpp jàmm di ko fekkee ay déwéni déwén amiin alors ñu daal di gis ne dafa mel ni dafa coïncider mhm. tabasu daaw at bu ren ndax daaw si je me trompe c'était en juin ou juillet donc ren encore mu nekk euh, en juin. Mhm. donc euh, ti seen fin championnat d'habitude c'est en juin. Mhm. Euh, naka nga dundee tabaski daaw bet bu ren bi ak plaisir à par tabaski daawat bu ren. ça mhm. fait combien de temps ñëwoo Sénégal tabaski si. waaye avant toog naa quatre ans tabaski wu ma daaw ak ren fekkee naa ko te chance sax tamit di si am mbégte quoi. Ah, daanaka ñu day bëgg di tabaski quoi daanaka tabaski daanaka yu si bari daana ñu fekk fële ñuy jouer ou bien. nga nekk si ay match di doo doo sentir tabaski quoi mais Sénégal moom boo ñëwee di nga sentir dëgg dëgg dëgg tabaski wax dëgg yàlla te ñu ngi koy ñaan chaque fekkee biir Sénégal quoi incha allah euh, ñu gis ne bu njëkk ba tabaski bu jotee euh, suñu parents yi dañu doom dem rey xar bu ñu paree dañuy dugg mhm. kër voisin yi këru mhm. kër ñu dugg fa baalonte ak mhm. est-ce que c'est comme ça que ça se passe toujours avec vous yéen euh, génération bu bes bi waaw génération bu bees ñu koy def moom bariwul wax dëgg yàlla man moom daanaka ñi may àndal sax buñ tabaskee ba pare après guddi rek la ñuy daje quoi mais c'est très nga gis personne yoo xamante ne day dem si kër yi di baalu ak ak yooyu quoi comprendre nga tam ñu ngi koy def tam si lendemain bi quoi mais dafa néew. waaw génération mais mag njëkk yi ñu ngi daan def ba léegi am na ñu koy def ba léegi quoi. waaw ah, tey rek def naa ko jéem ese naa dugg si yenn kër yi pour baalu ah, ak xam après ba ñu rayee noonu xar fees yooyu mm-hmm. jàdd naa si yenn kër yi jër baalu ak ak yooyu quoi gis ñu ma war gis ak kilifa yoo xamante ne daanaka ay jamono gisuma leen quoi ok waaw loolu quoi ah c'est important c'est mm-hmm. ni ma ko waxee sa njëlbeen ba euh, bàkkaar nag dafa daal di sew mm-hmm. à tout moment mën ngaa tooñ nit wala nga euh, blessé côté doo ko yëg moom ba tax na tabaski baaloonte ak da cee daal di baax alors bu ñu jógee si tabaski bi dañu daal di ñëw ci vacances yi alors naka nga koy dundee actuellement. oui ça va vacances yi moom wax dëgg yàlla man moom saa championnat bi jeexee damay toog deux trois jours la ko fële. Mhm. après ma doog a ñëw Sénégal su ma ñëwee Sénégal. li may dund fële ak fii yëpp laay euh, yëpp benn quoi man du ma su ma ñëwee damay ànd ak samay copains ama nekk si jàmm parce que yooyu doo ko am fële da ngay parce mois nga mën a profité pour gis sénégalais yi nga mën a nekkal ak say famille ak xarit yi parce que douze mois la te onze mois yëpp da nga koy liggéey un mois bi damay profité ñëw moo mënoon naa dem nag ay ay Europe di def ay vacances ak yooyu mais man fii laa ah, am na ñu ah. koy def si yéen ah waaw ñoom bu ñu jëlee vacances rek dañuy dem beneen dëkk si duñ ñëw Sénégal non yu bari sax gars bari dañ koy def mais man moom wax dëgg yàlla championnat buy jeex sama xel Sénégal lay njëkk a daw waaw <laughs> wax dëgg yàlla Sénégal nag dafa neex ah. seen retrouvailles Sénégal ah ngeen di organiser ay euh, ay ay match amical effectivement donc euh, lo dafa mm-hmm. neex si Morop fii laa koy passé a tout donc yooyu dinaa si ñëwaat tout à l'heure <laughs> mais aussi toujours ces vacances yéen da ngeen am euh, mm-hmm. surtout médecin yi nga xam ne ñoo leen di traité dañ leen di naan mm-hmm. euh, pour ngeen daal di am régime alimentaire bi nga mm-hmm. xam ne c'est normal alors que Sénégal fii boo fi ñëwee euh, est-ce que régime boobu noonu ngeen xam ne moom ngeen di def da ngeen koy respecté comme il faut wala da ngeen di da ngeen di lekk lu leen neex ba ngeen ñibbi non pour yeneen jours yi moom xaw ma quoi mais man moom dama koy respecté wax dëgg yàlla daanaka su ma ñëwee fi du ma lekk sa lekk boo xamante ne day ëpp quoi parce que boo fi ñëwee jël fi poids xam nga jël tuuti graisse après boo retourné gars bi day contrôler. te dañ lay liggéeyloo mu gën a métti non si day day métti préparation hivernale ak yooyu dafay métti quoi. donc bu ñu ñëwee fii dañuy contrôler wu baax. dañuy contrôler wu j'ai vu que également boo leen ñëwee da ngeen di respecter seen le matin vous à la plage. wala tout le temps yéen a si salle si salle yi. dem salle bu gën a jege. di dem parce que club bi da lay jox exercice quoi. ok jour yoo xam ne da nga la gars yi di def di ko. di dem saal di dem ay géej affaire di entraîner. est-ce que loolu vacances la tamit vacances yoo xam ne. Mhm. <laughs> dañ lay jox ay exercices à faire. mais si au niveau nool la la bàyyi ngay nelaw nag. Mhm. dañ la dañ la bàyyi vacances championnat bi tëj na rek demal par exemple demal Sénégal toog quoi non waxuñu la toog quoi. Mhm. am na yoo xam ne ay da lay joxe exercice yoo xam ne nga koy def quoi ay entraînement ay séance yu sew mais du yooyu ak ah, boo ko respecté boo demee <laughs> def ko boo boo toogee tamit defoo ko si mhm. yow la quoi boo delloo yow xam nga li la fay li la fay xaar quoi. ok alors ñu daal di gis euh, euh, championnat turc. Mm-hmm. ak championnat saoudite ban mm-hmm. moo ban moo gën a kii si yow. non man joué naa saoudite joué naa turc mais turc bokkul ak saoudite quoi. bokkul c'est différent lan championnat turc moo xaw gën a dëgër moo gën a agressif. moo gën a agressif waaw waaw dafa bari daw xam nga dafa bari daw trop. dafa naar bi quoi naar bi dafa am bu bu Arabie saoudite dafa am mm-hmm. taxaw bu bari quoi tu vois. d'accord mais championnat turc moom même ba championnat Europe bi championnat turc moo leen ëpp niveau quoi parce dafa bari daw dafa am agressivité xam nga. ok ah. loolu. yow est-ce que yaa ngi xalaataat delluwaat Arabie Saoudite. non si instant moom maa ngi xool quoi ak ki may liggéeyal tu vois. Mhm. du ma instant yi jëloon benn choix quoi proposition yi nag day ñëw wax dëgg yàlla fu ne lay ñëwe quoi vers Europe day ñëw vers Arabie tamit day ñëw quoi mais donc instant dañuy toog di jël suñu temps xam nga bañ a yaa xamante dara quoi. d'accord après dinañ def choix boo xamante ne dinañu gënal quoi. Mhm. Voilà. Si je ne me trompe pas aussi, Arabie Saoudite, mm -hmm. euh, beaucoup d'argent. Yo, tu mhm. gagnes beaucoup d'argent ci mhm. ci Arabie Saoudite que Turquie. waaye arabique koo gis ku dem arabique rek day fekk ñu doubler sa salaire wala ñu tripler ko. ñu tripler ko amul jour bi dem foofu di jël même salaire bi muy jël fële en Europe di dem ku fa déplacé wu dem rek. moo gën a ëpp xaalis effectivement est kon xaalis bi moo tax joueur yu bari léegi parce que gis nañ ne faral nañu gis ni joueur yu bari. ñoom dañuy préférer mhm. euh, euh, Arabie Saoudite que léegi jouer mhm. en Europe mhm. léegi maintenant xaalis bu bari bi moo tax wala si comment non léegi xam nga métier métier football métier la comme euh, football fi si jamono gars yi métier la parce que da ngay mi di def tamit sa liggéey bi yaay ñaan yàlla am beneen salaire bu gën a baax bi n'est-ce pas waaw donc joueurs yi léegi day business pour am waaye am na ñoom tamit day choisir nekk Europe pour am tour xam Gurgis si e grand championnat yi quoi mais am na tamit ça dépend rek ku si nekk sa rek. parce que football tam dafa gaaw quoi am na ñoo xam ne loolu gënalu leen. toog Europe toog Europe rek. te joué di fay taxe ak yooyu am na ñoo xam loolu gënalu leen quoi dem arabique di fa gagner mm-hmm. plus d' loolu moo leen di arranger quoi ça dépend choix joueur rek. d' accord alors. Euh, Alassane Ndao je vous rappelle également il a été une fois sélectionné mm. dans l'équipe nationale mm-hmm. équipe A donc mm-hmm. voilà Mm-hmm. Alassane euh, sa sélection boobu nga xamoon ne sélection sélection wal nañ ne la ko mm-hmm. euh, euh, comment tu la vécu parce que tey mm-hmm. joueur yu bari ñoo ngi ci club bu leen neex mais ñoom seen souhait mooy ñu jouer seen dëkk ak foo mën ci nekk ci àddina li lay gën a neex mooy nga jouer sa dëkk représenter sa drapeau donc yow mës nañ la sélectionner dans l'équipe nationale euh, comment tu l'as vécu waaye ouais, ça parce que équipe nationale képp ku mu woo bu ñu woowee dañuy kontaan di ñëw bu ñu woowul tamit dañuy kontaan di ñaanal ñi fa nekk tamit di andi dara pour Sénégal quoi tu vois parce que équipe nationale moo nekk loo xamante ne bokkul ak dara quoi sa pays ngay teewal say famille ngay teewal Sénégalais yi ngay bu ñu woowee dañuy ñëw te jaaroon naa fi ñëw naa am naa si mbégte dellu naa après gëj nañ ma fa woo mhm. tamit di ñaanal ñi fa mhm. nekk ñi andi gënaan yaay coupe d'Afrique damay mondial yooyu quoi tu vois mhm. équipe nationale moom wax dëgg fierté la quoi ñu ñaan nañ di sol maillot bi suñu rakkee tamit ñaan nañ yàlla képp ku nekk joueur professionnel bëgg na di teewal dëkkam quoi mhm. comprendre nga mhm. donc nag di xaaraat quoi di gën a góorgóorlu di concentré wu tam ci championnat bi ama ba ñu woowaat ñu incha allah D'accord. Alors, qu'est-ce que que moom moo la manqué euh, mhm. ba woowaataguñ la dans l'équipe nationale mhm. parce que nag champion nga yaa ngi toj fi nga mhm. nekk ah, pour ñi nga xam ne ñoo ngi lay seetaan xam nañ ne yaa ngi toj di def feu et a ah, fi nga nekk donc euh, euh, lan moo manqué pour ñu woowaat la kon comme mosoon nañ la woo dans l'équipe nationale lan moom manqué pour ñu woowaat non pour man dara manqué wul parce que booy booy nekk sa club di jouer tout le temps bu ñu sélectionné bu fekkee parce que sélection dañ na joueur buy jouer ak un man saison maa joué quarante matchs mhm. tu peut-être tamit choix des entraîneurs tu vois mhm. entraîneur ñooy xool seen choix ñoo xool tamit ki leen arrangé seen système bi ñuy jouer ak yooyu quoi parce que loolu dara parce que man li ma li ma gën a intéressé jouer sama club quoi mhm. nekk professionnel dem di jouer di di nekk si benn club te doo jouer loolu man bëgguma loolu quoi mais sama club man maa ngi góorgóor di jouer quoi équipe nationale nag loolu deuxième la loo xamante ne bul bés buñ la wooyee nga dem jouer pour sa pays quoi mais man moom sama club maa ngi def tout pour nekk titulaire pour jouer waaw di jouer chaque année tamit maa ngi siy góorgóorlu maa ngi siy sant tamit yàlla quoi laa fa xam nga maa ngi match yëpp maa ngi koy jouer mhm. boo xoolee saison yi maa ngi mhm. nag ñi koy def bariwul quoi bariwul déggoo moo tax ma ne la yaa ngi toj Ah. yaa ngi toj fi nekk yaa ngi c'est pas facile parce que di nekk si benn club de jeu titulaire bariwul ñu koy am na ñuy sélectionné en plus tamit am na ñuy sélectionné équipe nationale bari boo xoolee seen tànk yi amuñu vingt match tu vois mm-hmm. cinq match tu vois mm-hmm. comprendre mm-hmm. donc man moom li ma gën a intéressé mooy di jouer sama club équipe nationale après la bu bés bu ñu wooyee day ñëw teew jox li ñu am yëpp jouer pour Sénégal quoi parce que nous ay Sénégalais lañ c'est ça ouais. comme j'ai dit tantôt euh, joueur bu ci nekk tu rêves pour mhm. de jouer dans l'équipe A mhm. équipe nationale mhm. donc ñëpp a ko yàkkamte jouer parce que fierté la tey ngay jouer sénégalais di la supporter ñëpp xam nañ ne Sénégal moom supporter la ñu gën a mën loo gis ci àddina <laughs> ah, donc ba tax na euh, euh, dinaa la laajte ci ci équipe bi coow bi bari na lool ah. comment naka ngay gisee classement wu Aliou Cissé comment tu trouves le coach d'abord waaye non xam moo entraîneur mooy def choix mooy def moo am du nelaw nag entraîneur yi duñu nelaw dañuy toog di xool di superviser waa di calculer xool ban système moo leen arrangé quoi peut être gars am na ñoo xam ñi naan système beeg yooyu quoi mais moom moom mooy def système te joueur tamit système bu mu bëgg moom dañ koy jouer mhm. tu vois bu doxul dañ koy jouer mais ah, c'est euh, moom mooy entraîneur bi quoi mhm. entraîneur donc nag peut être su ma peut être su ma juumul gars yi dégg naa si internet beeg gars yi sénégalais yi gars yi kaas système bi système bi xam nga mhm. peut être moom bu toogee dina xam lu muy def parce mm-hmm. que moom entraîneur newul ku bees tamit quoi xam na bu baax li muy def quoi. donc moom boo andee système rek am na lu muy préparé am na lu mu bëgg quoi. pour après waaw donc comme dernier match yi nga xam ne jot nañ ko joué gis nañ ne mm-hmm. sénégalais yaa ngi critiqué bu baax. Mm-hmm. Euh, euh, mode de de de système am. Ah. donc ni koy classé et cetera. parce que ñii nee nañ ñu war a joué ñu joué loo leen fee Aliou Cissé bëggoon naa la nag dalal man. Ah. <laughs> yow bëggoon naa la dalal mais dinaa la dalal prochaine fois. Ah. ñi war a joué fii mu joué loon fële. Ah. ñi war a joué mu joué leen fële. donc euh, donc yow tu trouves que moom xam na li muy def donc c' est pas l' appel que di ko critiquer. non non c' est pas l' appel ñu ko moo xam na lu muy def quoi ñun daf ñuy daloo au niveau quoi dañuy joué deuxième mi-temps coach bi jékki-jékki sans sans ñu beneen poste bi ñuy donc joueur bi yaa jéem a adapté. Mm-hmm. jour tactiquement da nga war a pare quoi comprendre peut-être am na lu muy seet ba léegi ko quoi tu vois moo tax gars yi di gars yi di may temps ci am bi quoi. dina dox xëy na di peut être moom tamit bu toogaatee dina ne ah li doxul dina ko. dina ko changé en tout cas Sénégal daal Sénégal yi li gën a doy waar ci moom mooy. dañu ñeme ma riirandoo kenn day wax dara rek. ñoom ñëpp topp ci. et puis nit day doyal sénégalais day doyal ci nit. donc voilà et puis comme Alassane mu ko waxee rek. bàyyi leen monsieur le coach mu daal doxalee ni nga xam ne. noonu la koy daal di liggéeyee alors ñu daal di gis ne euh, Alassane mhm. de deux mhm. mhm. changé nga cinq fois club lan mooy waral changement euh, club yi non lu koy waral maanaam euh, parfois club yi dañ lay soxla quoi tamit comme ni da de comme signé benn équipe comme ba ma demee Saoudi joué naa fa après mu demandé prêt quoi ba ma demee demandé prêt dellu fekk équipe bi nag dafa wàcc deuxième division mais bu ma fay wàcc euh, fekkuma fa quoi léegi maintenant bu ma dem di jouer di ay deuxième division dama continuer ñu abale waat ma beneen équipe quoi loolu affaire bi demee par nànk naa moo tax ma ngay gis may changer équipe équipe bi quoi mais sama contra jeex Saoudi yaay quoi am si dem Konya Sport si li ma jënd nii mhm. dernier moment après si laa jouer Sport quoi d'accord voilà alors euh, tey nag dalaloon nañ fi ki nga xam ne mooy Alassane Ndao ah. donc nekk un international footballeur ah. Ah, ñi nga xam ne c'est des connaisseurs euh, de du foot euh, xam nañ ko bu baax ràññee nañ ko ndax mm. moom mu même dara sax sol na suñu drapeau national représenté na suñu pays voilà donc moom la ñu dalaloon ci spécial Korité avec les célébrités mm. kon que nag cette spécial Korité avec les célébrités dañuy faral di jël ak ñi nga xam ne dañuy daal di bari. Mm. Ah, dañ buñ jógee fii dinañ dem fële ca euh, euh, Pa Abdou Cissé. Ah, donc euh, dañ lay daal di bàyyi nga wax li nga bëggoon wax loo xam ne mm. peut-être amaana laajte wuñ la ko. Mm. non yow t'as tout dit ñu daal di la bàyyi nga daal di jaajëfante téléspectateur yi lay seetaan. daal di tàggatoo ci ñoom. waaw mm-hmm. problème man naa maay char ñëpp di. baaluwaat ñëpp ak tey baal ñëpp ak si ñu mu ak ñu mu yëgul quoi comprendre aduna nii la quoi di hmm. rafetlu tam émission bi am di nuyu tam sa caméraman bi moom hmm. sonal na la trop <laughs> mooy loolu quoi di leen ñaanal jàmm yéen tamit télévision bi gën a yokk ak seen beeg yokk tout mm-hmm. xam def leen kii bu gën a mag si àdduna bi quoi mm-hmm. am di leen ñaanal jàmm di leen baalu aar ak quoi si mm-hmm. déplacement yi am naa tamit sonal nañ leen trop ah, quoi da ngeen di def tout pour def émission mais des fois nga gis gars yi bañ ak yooyu quoi dëgg la ah mais si baaluwaat ak bu baax quoi am benn problème tuub tey jéegul en ah. tout cas moom waxal na ñëpp ah. <laughs> waaw xew la <laughs> dañu doy waar ne la ok on t'attend nga dem ba si biir ñu daal di changé euh, euh, ah kii nii euh. donc mi ngi noonu Alassane Daw la ñu daw la loon waaye Papis Dem ni mu ma sonalee ñëpp a koy wax Papis Dem nee na moom samay caprice la mënatul gérer <laughs> ma ne ko je suis mu ne ma noote moche <laughs> mi ngi noonu alors ñu daal di joxante dig daje léegi léegi dina